رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي نغا خمانتني نيوي توب شين بي دي لا ينت بي تي في نيغي لين دي نيو دي لين زيار تي ويرو تدوي نغا خمانتني موي شهر رمضان المبارك di ñaan borom bi subhaanahu wa taala lépp loo xamante ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla yàlla nañ ko nangul waaye lépp loo xamante ne rek gaar nañu ci ay rëcc rëcc yàlla nañu ko borom bi jéggal comme niñ ko defee woon ci suñu jotaay yi nga xam ne moom moo weesu mu doon jotaay boo xam ne jotaay fàttalante la ci wàllu diine mu jëm ci téere bi nga xamante ne moom la ànd ak yéen ci émission bi nga xamante ne mooy émission wu jotaayu jigéenu jullit mu nekk kitaab dalilul mar'a al muslima muy tegtalu jigéenu jullit bi ndax la shakka ne jigéenu jullit bi soxla na loo xamante ne ay tegtal lay doon yu koy mën a awale ci yoon mu mën a def ay jaamu yàllaam yoo xam ne daf koy teg ci leer ndax yàlla dafa ne jaamu leen boroom subhaanahu wa waaye teg leen ko ala basira teg leen ko ci lu leer nañ ko ci lu nag faaw nga ah, làmboo li nga xam ne mooy yoon woo xam ne dan koy xam mu doon ay jàngale yoo xamante ne ci ngay mën a sukkandiku ngir mën a xam fan ngay teg sa tànk ci sa ay jaam yàlla ba léegi ñu ngi nekkoon ci li nga xamante ne moom mooy soow muy koor ndax dañoo ne li kulli makaanin maqaal place bu nekk ak lañ fa war wax ku ne xam na ne jamono ji moom ñu ngi nekk ci jamono yi weeru koor di ñaan borom bi rek saa su ne yàlla nañu yàlla nangul comme que ci jamonoy koor lañu nekk nag kon ñu daal di tànn bunt bi nga xam ne moo jëm ci wàllu ñu bëgg ci waxtaan ak yéen ci suñu jotaay yi weesu waxaan nañ ci li nga xam ne mooy xamle lan mooy koor ci yan mooy sarti koor lan mooy sunnay yàq li nga xam ne moom mooy koor tey incha allah ñu war a ak yéen ci nga xamante ne mooy fawaidu nga xamante ne moom mooy koor ak njëriñ yi nga xam ne moom la làmboo moom koor ndax ku ne xam na ni euh, weeru koor kat li li ci barke ak limu mu àndal ci ay njëriñ ay njëriñ la yoo xamante ne yu bari la moo tax borom téere bi ne li sawmu fawaidul azima lii di koor dafa làmboo yi nga xam ne mooy ay njëriñ yoo xam ne yu màgg la mu ne da ci andi yoo xamante ne kat dañ koy lim mu nekk ay njëriñ yuy dellu ci weer bu tedd woowee بيتي نيك انه عباده لله تعالى واحترام لشري... لشريعته من لي دي كور جامو يالا بو وينك واي نيك لو خامن جام بي بوكو دي داي دون لو خامن دا تي ورمالي لي دي آه، شريعه بروم سبحانه وتعالى موي لي مو تيرال كوكو جامو كون و جامو يالا لا موكي دو لو خامنتيني nit ki daf koy def ngir ne ñëpp a ngi woor naa woor waaye daf koy def ndax jaamu yàlla la woo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko koo togg te mu wax ko ci téeréem bu màgg bi comme aaya bu siiw boobu nga xam ne liñ koy jàng loolu ci koor bari na muy wax ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan man shahida minkum ash-shahra fal yasum kon képp koo xam ne teewee nga weer wi rek na nga woor te baat boobu mbokk yi baat bi jar a bàyyi xel le képp ku teewe weer wi kon am na ñoo xam ne duñ ko teewe wala am na ñoo xamante ne teewe nañ ko ren duñ ko teewe déwén te ku ko teewewul rek yàlla togg la kan kan la ko togg mooy ki nga xam ne moo ko teewe kon teewe boobu ñu ko teewe dañ cee war a sant borom bi subhaanahu wa taala waaye góorgóorlu ba def ci lu ñu mën ndax xamuñu kat bu déwénee ci lan la ñuy fekk yàlla ñu yàlla may ñu bokk ci ñi waye nak yalla neena kep ku ko tewé comme yalla mayna la nga tewé kon bokka ci ñi profito ci eh, ndir ñoyé motax mu ne kon bi ci njëkk moy ne woor jaamu yalla la ba da borom bi ne as-sawmu lii wa ana ajzi bi kor man mako ko moom te maa fayal sama bop borom subhanahu wa taala jël kor mu dekk lo xam daf ko jagalel bopam mom mokay fayal bopam kon ñu jàppee ko kon jaamu yàlla waaye ñu góorgóorlu ci ba nga xamante ne du doon loo xam ne daanaka dañ koy def te duñ dara bi sallallahu wasallam dafa ne man man saama man saama ramadanan imaanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi képp koo xamante ne woor na li nga xam ne mooy weeru koor ci ngëm ak li nga xam mooy sàkku yiw mu dinañ ko jéggal li nga xam yi nga la kon nañu góorgóorlu ci jaamu yàlla bu màgg boobee sàkku ci yiw waaye wut ci li nga xam ne mooy njéggal borom bi na ci li nga xamante ne mooy euh, njëriñ yi nga xamante ne koor am na ko mu ne fiihi sixatun taudu ala badani saim lii di koor dafa am ay njëriñ yoo xam ne day delluwaat ci ki nga xam ne moo koy woor ci ban côté ci ñu jëm ci wàllu wér gi yaramam ndax koor dafa nekk loo xam ne dafay faj nit ki defe naa ni ñun boo wooree rek oyof gi ngay am rek doy na pour nit ki xam ne lii kat mi may faj ndax ku ne xam na ne ñun suba ba ngoon jot dañuy faral di def yëfi siise siise yi daanaka am na siise siise yi ñoom duñ noppalu dañuy gis gan ba julli sax day jot duñ mën a jug mais xoolal koor ni ni euh, jàkka yi di fees ay nit mm-hmm. xoolal koor ñi di oyofee ngir jug di jaam yàlla ndimbalu yàlla mi ci takk giñ takk seytaane mi ngi ci waaye wér gi yaram gi ni ñi di àndal tam mi ngi ci ndax dañuy oyof lool buñ bëggee jóg rek dañuy mun a jóg kon koor dafa am wér goo xam ne daf koy def ci wér ci yaramu doomu aadama bi buñ demee ba tubaab yi dem ba trouvé ne koor dafay faj defe naa ñun jullit ñi war nañ leen a wax ne leen tardé ngeen ndax ñun islam wax nañu ko bu yàgg yàgg yàgg ndax ñoom dem nañ ba. am nañ seen façon yi faj yoo xam ne dañ koy faj léegi seeni malaat ci tere lañ ñu lekk naan ay diir ay waxtu yoo xam ne dañ naan bu lekk bu naan wala ay fan yoo xam ne dañ leen naan bu leen lekk bu leen naan te dañuy gis ne ñooñu bu ñu dellu seekat dañuy ànd ak dañuy ànd wér lañ bëggoon faj ci ñoom day wér dañuy gis ne dañuy ànd ak kàttan goo xam ne amuñu ko woon lu jiitu yuy woor waaye ñoom seen koor googu ndax dinañ ci am tiyaaba déedéet waaye jullit bi nag day boole am tuyaaba ak am ci li nga xam ne mooy wér-gi yaram kon koor njëriñ la ci kaw njëriñ bokk na ci ba léegi ci njëriñ yi nga xamante ne koor am na ko moom mooy as-sawmu junna comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon mu ne as-sawmu junnatun koor de pàkk la maanaam dafay doon loo xam ne dafay aar nit ki ci diggam def li nga xam ne mooy bàkkaar waaye dafay doon loo xam ne ay dencukaay yiw lay doon ci moom ndaxte la chaque ne nit ki bu wooree kooram googu day dagg ci moom li nga xam ne mooy bànneex te bànneex mooy ëmb li nga xam ne bàkkaar lu ci ëpp ci bàkkaar yi mu ngi aju ci li nga xam ne mooy ashahwa mooy bànneexu bakkan bëri na lu nit ki di mooy yàlla tegu ko fenn fu dul ci bànneexu bakkaram ndax buñ demee ba ku koo xam ne majeur la di bañ a woor tegu ko fenn ci bànneexu bakkanam jiyaaba yooyu ko ko ma bàkkaar yooyu di ko ko yóbbee mooy lan bànneexu bakkan buñ demee ba nit ki di sëyeeg soxnaam ci bëccëgu weeru koor bañ tere ko lan moo tax mu def ko shahwa moo tax mu def ko kon bànneex yooyu nga xam ne mooy xëcc nit ki di ko yóbbu ci ay ñaawteef koor bokk na ci li nga xam ne moom lay def mooy day dakk bànneex yooyu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ya ma'shara shabab man istataa minkum al ba'a falyatazawwaj fa in lam yastati fa alayhi bi sawm képp koo xamante ne mën na denc soxna ci yéen ci wàllu dëkkal ko ak dëkkoo ko na dem takk soxna mu waaye képp koo xamante ne munu ko mu ne digal naa ko nay woor loolu moo tax yonent bi digal ko muy woor ndax koor boobu dina dagg ci moom li nga xam ne moo waroon a tax muy caaxaan te fekk munta am soxna kon koor bokk na ci li muy def mooy day dagg li nga xam ne mooy ay bànneex ci nit ki mu musal ko ci li nga xamante ne moom mooy di tàbbi ci li nga xamantene mom moy mooy ñaawteef yi moo tax assawmu wiqaayatun min al masiyah kon koor dalay aar ci li nga xamantene moy mooy ñaawteef yi bokk na ci ndiri yi nga xamne ba legi koor am nako koor dafa am li nga xamne moy fawaid yo xamne da fay jëm ci walu ijtimaa manam society bi walu social day doon lo xamne day bëri lol ci wër koor gi ndax gis nañ su wër koor ñewé dimbalante bi ma sha allah ni muy bëree ci digënté nit ñi nga xamanteni ki nga xamne dafa am ni muy xalaaté ki nga xamne dafa ñak ba jël alalam di dem di ko ko joxe ndax mom bu woré dina ko fatali li nga xamne moy xif ak mar bi nga xamne ki di faqir bi ak miskin bi ñoom daanaka ci lañu dëkk amna faqir yo xamne dañoo dëkk ci koor ndax lan amuñu luñu lekk. yént bi sallallahu alayhi wa sallam daan na xëy ne suñu yaay Aïcha lan moo am suñu Aïcha ne ko tey de dara nekk fi mu ne kon woor naa nga xam ne ñàkk sax dina tax ay nit dëkkee koor waaye ki am moom nga xam ne chaque jour mi ngi am li mu bëgg mi ngi lekk li mu bëgg su demee ba weer weeru koor ñëw mu xam ne tey kat am na lépp ci këram waaye am na ñemewu booleek ndax xam na ni kat ragal yàlla bi mi ngi fi waaye loolu dina ko fàttaliwaat ne ko lii nga def tey am na ñoo moom lañ dëkkee ndax amuñu loolu dina ko dimbalee bu ko yàlla defalee tawfeex mu mën a jël ci alalam mën a jox ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xamante ne euh, dañoo ñàkk ba tax na wàllu social boobu nga xamante ne koor daf koy def ci diggante ñi nga xamante ne mooy afraadul mujtama nekk na loo xamante ne mbokk yi ci njëriñu koor la bokk waaye bokk na ba léegi ci li nga xamante ne mooy njëriñu koor guddi gi nga xam ne dañoo ne bu fekkonte ne koor loolu rek la andi doyoon na sëkk ci li nga xam ne mooy barke ak njëriñ muy laylatul qadr ndax borom bi moo ne laylatul qadr xayrun min alfi shahr li nga xamante ne mooy laylatul qadr moo gën jaamu yàlla junni weer te junni weer kenn ku nekk ci ñun xam na ne kenn ci ñun mënta dund junni weer waaye boo dundoon junniy weer mënoo jaamu yàlla junniy weer kon nga xam ne euh, xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ mooy xeet bi gën a gàtt fan ci li yàlla bind seen at du weesu diggante soixante ans soixante dix ans quatre vingt ba quatre vingt dix ans bu bëree bu bëri am na yàlla xéewal ñu yegg cent ans yàlla ko borom bi defal at yooyu ni mu gàttee dafa mel ne noonu la yàlla defee ful seeni tuyaa bu mu bëree noonu ñu mën a dabu yi nga xam ne at yi nga xamantene borom bi wàññi nako ci seeni at mo tax da ngay gis ne jaamu yàlla yu ndaw yàlla ci def tiyabu yu bari ndax xet bi dañu ne xet bo xamne ñoo gëna gàtt fan ci li yàlla bind ci ko suuf moo tax ba xolal benn guddi nga jaamu ci yàlla yàlla fay la tiyaboy ku manam jaamu yàlla junniy weer lolu amul fenn fu ci li nga xamne moy diine islam nga xool ba tey tuyaaba buñ ne nit ki bu wooree sitta shawaal yàlla da koy jéggal ay bàkkaaram yi nga xamante ne lu tolloog at xoola atu yàlla yàlla jéggal la ci say bàkkaar nga xam ne kon tuyaaba yu rëy yooyu yàlla dëxañ ko ci jëf yu ndaw yooyu dafa nekk loo xam ne daf ko defal ab jagle ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bu la yàlla mayee tamit nga fekkee li nga xam ne mooy laylatul qadr war ngaa góorgóorlu bu baax a baax ba màngi ci tuyaaba yooyu bañ mu raw la euh, te am na ñu ne fukki fan yu mujj yi la am na am ne dañuy tànn benn bés de jour bii la mu nekk mbir moo xam ne itam lu naqaree xam na ndax nag kenn xamul ban la motax ki meuna taxawal fukki fan yep jamu ci yàlla kooku mom mun naa teg loxoom ne man fekke na laylatul qadr waye ki tan tànn bés bàyyi bés moom ta wat ne mom fekke je tewé ne laylatul qadr parce que xamul ban bés la ci bir bés yi ba tax ne kep ku yàlla xewale nga fekke ko na nga gor góorgóorlu nga jamu ci ndax li di alfu shahr mom ken mënu ko jamu yàlla waye boko defé ci benn guddi gii kat yàlla defal la tiya bayku wor woor wer te lolu amul mudul ci wer ko kon lolu bokku na ci njëriñ yi nga xamne wer ko day ñëw andale ko bokku na ba legi ci fawaid yi mooy njëriñ yi yàlla day def li nga xamne moy mooy arrahma ci li nga xamne moy wer ko koor set yërmande bi day bëri ci diggante nit ñi yàlla day def yërmande ci li nga xamne moy xet bi ci weru tedd bi ñu nekk da ci def li nga xamne moy al maghfirah muy jéggal waye itam da ci def li nga xamantene mom moy mooy itqu fi nar moy gorel ay nit li nga xam ne mooy safara yàlla ñu ko borom subhanahu wa taala defar kon nga xam ne loolu mbir la boo xamante ne yàlla subhanahu wa taala dëxëñ ne ko ci weer bu bu bu màgg bi bokk na ci njëriñ yi ba léegi tam mooy yàlla dafay yeew ñi nga xamante ne mooy marabatu shayatin mooy shayatin yu mag yi yàlla daf leen di yeew duñu duñu nekk ci biir nit ñi da leen di yeew fële ca jahannama ndax loolu dimbalen nit ñu bëree bëri ci seeni wàllu jaamu yàlla waye nak amna ño xamne ne ba léegi nak mom seytaane jàpp leen mais seeni banexu bakkan mo leen japp ba motax ba nit ki buy def dara na seytaan seytaan weeru ko ñëw mënu ko bàyyi nga xamne ne nekkatu seytaan mais bànneexu bakkan mom mo fa dess bokku na ci ñeriñam ba léegi mom moy al umratu fihi ta'dilu hajj al hajj maa rasul sallallahu alaihi wasallam sallam ki def umra ci weeru tedd wi yentu bi sallallahu alaihi wasallam sallam umra na day tollo, ki am tiyabay ku acc ànd ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ngay gis ñi nga xamante ne mooy ñi yàlla may ak ñi nga xamante ne yàlla xéewale na leen ñu mën a dem umra ci weer bi da gis ne dañuy bëri lool li ñuy dem umra ci weer bi ndax tuyaaba boobu la ñuy dàq nga gis ne yàlla am na jaamam yoo xamante ne ñoom dañoo xam fan la promotion yi nekk ñu fay dem ñoo tax ñu nit war nañu góorgóorlu bu baax a baax di xam fi tuyaaba yi nekk ak fi mu ëppee ñuy góorgóorlu ba bu jamono joor yi jotee lu ñu mën di jàpp ñu bàyyi ko ba fexe ba loolu ñu def ko moo tax ki yàlla dénk alal dénk la kastan nga mën a jël sa alal di ko def ci leneen bu weeru koor ñëwee góorgóorlu nga bokk ci ñuy def umrax ci weeru koor bi nga mën a màngu tuyaabay ku woor ku aj ànd ak yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam sallam ndax dañoo ne aj kese rek li ci nek ci yiw kenn xamul nu tool ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena al ne alxajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna ak nu nangu amul benn fay bu la yàlla di fayaat dudul nga faatu rek mu jël rek dugal la al janna yàlla ñu ko borom bi defal kon bu fekkante ne aj bu ñu nangu rek mooy aljanna fa kay fa aj boo xam danga ko ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nga xam ne tiyaabal bu mag mag boo xamante ne nit ki du am fenn furut ci li nga xamante ne mooy weeru kon loolu bokk ci njëriñ nga xam ne koor daf koo daf koo àndal bokk na ba léegi tamit ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, njëriñu mooy euh, li nga xamante ne moom mooy tiyaaba yi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko koy fulal daf nga xamante ne moom mooy tiyaaba yooyee kon mbokk yi nañ góorgóorlu ci li nga xam ne moom mooy njëriñ nga xam ne koor àndaaleel nañu ko balaa moo dem ndax gan la boo xam ne day gane si waaye tamit day ñibbi ndax borom bi nee na ay yaaman maaduuda ay fan la yoo xam ne dafa limu moo tax fan la yoo xamante ne daanaka bañ commencé ak léegi buñ xoolee rek lu bëree bëri ci weer wi dem na daanaka li gën di des moo gën a néew li dem kon nañ góorgóorlu ba nga xamante ne njëriñ yi ñu koor andi dinañ góorgóorlu ba ñu màng ci lu bëree bëri buñ mënta màng lépp ñu màng ci li bëree bëree bëri ndax kenn xamul euh, li nga xamante ne mooy bii di ñëw fan la ñuy fekk incha allah kon lépp lu jub ci euh, euh, kàddu yi ci borom bi la subhanahu wa taala lépp loo xamante ne dëng na ci rek ci ñun la ak suñu gàtt ali wax subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh